salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars déglu leen sama yaay bu baax ñu doog a continé waaw dama bëgg ngir yàlla ak jëmu suñu Babacar Si nga may ma rek nga génne ci ñoom ngir yàlla génnal ci ñoom ci ñii ay ngir yàlla dimbali ma ngir yàlla yow boo bëggul sa bakkan bi ñun bëgg nañ nga toog fii ba ca kanam dimbali ma ngir yàlla nga génne ci ñoom jigéen ñi nga nekk lañu ñëpp bokk a génn ci ñoom génnal ci góor jigéen ñi waaw góor jigéen ñi baaxuñu te réew mi kenn mënu leen fee jële ndegem borom réew mi moo leen fi mënta jële mënu leen a xeex bu leen jéem a xeex génnal ci ñoom génn ci ba set wécc set beneen yoon nga dellu ca la nga nekkoon sax boo ko mënta bàyyi moo gën teg a génn ci ñoom kuy sa mbokk rek de wallaay yàlla xam na ne de mu ngi jooy mu lay jooyal waaw yaay maa ngi lay ziar man de yaay jaaxal nga ma man de damaa xamul loo jooy ba te ku rafle wala ku manqué xaalis wala ku ay nelawam doyul yaay loo ma mas ñaan defal naa la ko du du kër gu rafet du passeport du dara yow am nga lépp loo soxla rek maa ngi ci loo bëgg maa ngi ci loo ma mas ñaan nag ci àdduna bi defal naa la ko mais góor jigéen yi maa leen engagé li tax ma engagé leen ak fit bi ma am du du du yow yaa ko def ci man sama papa la yaa ngi dégg sama papa xaw ma ko mais dégg naa ay jalooreem aw ma lu may ragal xeex góor jigéen ci jaamu yàlla la bokk sama bakkan bi yaay bëgguma mu des si bëgguma ci ñu retirer sama passeport indi wan ma Sénégal déggoo ma de duma bàyyi man duma ragal ñaan ma lu ne mais foofu moom génn fa dégg nga merci beaucoup. bon dégg ngeen sama yaay duma ko may li mu bëgg xam nga Omzo Soso dama koo jël toj data ndeyam dama jël autoroute à péage bi xol xoti ci data yaayam ba mu dam wowi pambay pambay sax dama ko faté won parce que kooku gor jigen bu magal la comme umzo rek ñom seen di bal jeex da légui ñu dé bo xolé moustat sam yi di mel ne douce comprendre nga xam nga nan ngeen def umzo zozo yok pambay ku ci nek da nga wara a sa yaay ba mu ko ba mu ñew mbej ndayam mbej taj talata ndayam doxat ndayam ne ko eh mais yaay lan la la def lan nga liggéey sama kër papa ba jurma ak leuf ni mu nexé man may puusi day ñu may puusal samay day doomu xaj pambaay ñu tuddee la Moustapha Mbaye ah yow yow sa sa sa papa di ilimaan ah ñu tuddee la turu kilifa yu sell ngay puusi ndey ñu lay puusal say day ngay ndamoo sa xaalis bala moo mënoon a neex am ngeen xaalis ma am xaalis plainte ay dem ak ñëw du ma leen mënal dara du ngeen ma mënal dara doomu réew mi laa ngeen di doomu réew mi da ngeen di def def ma fi wax fan la ni dajee ñu génn ñu xolli seen data nday noonu ngeen di def pas ay police yooyu dañuy ñëw ñu toj seen data nday 人你不。